Ndoye loolo Youssou Ndoye équipe nationale l'international ñu ngi lay nuyu. maa lay di fay. Youssou da ngaa bëgg làmb lan la. dara passion la rek mooy suñu sportu dëkk ay xam nga ñun yàlla dafa def ñun basket nañuy def euh, football bi affaire yëpp te yooyu yëpp ay sport yoo xam ne dañ kaa wàll yàlla mais lii mooy suñu sportu dëkk lii mooy. maanaam tey bu ñu doon joxe suñu carte d'identité si sport lii la ñuy joxe moo tax xam nga luñ si mën a jàpp rek pour mu gën a développé wu dañ koy def allah. le 14 août jam dafa tëgg ñaari xale yoo xam xamante ku ci nekk sax xarit la muy Fils de Balla di Gora Sock Youssou Ndoye comme ci faral ah man kañ boobu damay dem rek toog seetaan dinaa dem moom dem moom dinaa ko def incha allah toog seetaan te maa ngi leen di ñaanal ñoom ñaa ñëpp jàmm incha allah que le meilleur gagne waaw ñoom ñaar noo gisee seen état de forme ñaari xale non ñoom ñaa ñëpp seen forme yi baax na te xam nga combat bi luñ ko pousse dafa kii ñoom ñaa ñëpp ñu gën a préparé wu te tey jii gis naa ni jour boobu dinañ bëree combat bu neex incha allah. boo doon analyser combat ñoom ñaar kan ku ci nekk lan mooy fooram ak faiblesse waaw xam nga man nag mënuma analyser noonu te xam nga parfois analyse noonu si kii mooy tam nga joxe fooru kenn ak faiblesse kenn moo tax lu ñu ñaanal daal mooy ñoom ñaar ñëpp ñu am jàmm incha allah bëre combat bu neex combat bu daax saison bi incha allah. naka vacance waaw si kaw bu baax. waa mi ngi neex. bu baax tey rek ceebu jën laa ne. kon sa plan la <laughs> <laughs>